amiin Mbacke jërëjëf Mbacke kii mu ne ki nga xam ne dafa jaayante ak sëriñ bi mu ne ki nga xam ne dafa jaayante ak sëriñ bi mu sëriñ bi jox ko ay lawraat ne ko su amee nangami fan naa ko yëg nee na diggante bi nag seytaane mën ko ba mu def loo xam ne indil na ko njàqare ba mu am kersa ba bàyyi lawraat yi am kersa ci digganteem ak sëriñ bi mu ne mu demaat ba yàgg xelam delsiwaat mu tuubaat mu ne ndax kooku dafa war a àggale lawraat yi ko sëriñ bi joxoon walla ndax dafa war a delluwaat ci sëriñ bi leeral ko dig-dig woow nga xam ne seytaane dox na ko ci digganteem ak digal yi loolu dama koy faral di waxtaane ba tàyyi doomu aadama mat yàlla rekk mooy ki ko def loolu dañ koy bàyyi xel bu baax nit ki def bàkkaar sëriñ bi dafa wax ni nit ki ne bu ma tuubee du ma tee defaat bàkkaar warulaa tere tuub dañuy bëgg nag waxtu wu ne ngay tuub waaye bul ni man kat lii may def su ma tuuboo bu subaa ma defaat ko kon tàyyi dama tuub déedéet diggante bi ngay tuub suñ boroom mën na la fee moom fi nga tuubee ba ba nga fiy defaat leneen suñ borom mën na la moom diggante bi nga xalaat naan danaa ko fi defaat na fekk nga tal ko na fekk nga fekke ko te xamu fu sa di dote mooy tax dañuy bëgg nit ki fu mu toll di tuub ci li muy def ci ay rëcc rëcc bu mu naaw bu mukk yërmande yàlla kooku nit ki ñu jox la ndigalul kilifa goo man di dem bul di fa gëcc ndax nit yàlla yi li tax suñ boroom indi leen ci kaw suuf mooy yërmande xeet wi yërmande xeet wi lañ nit nag du daw yërmande fa saabu ak njàmpe akum ndox muy laabale am ñu takk dong lañ fa soxla ku set loo fay wuti kon nit ki am na ci loolu waru koy daw déedéet ndax rëcc rëcc ni ma koy waxee waxtu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa bañ ba ne su ngeen dutoon mooy yàlla yàlla wàcce fi ñu koy moy di ko tuubal mu di leen jéggal loola benn yaakaar moo ëpp doole ci ak jullit ci boobu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ban yaakaar moo ëpp doole it ci ni suñ borom misaale ci tuubu ni muy béggee ci tuubu aji tuub loolu ban yaakaar it moo ëpp doole boobu ci ni mu ko misaale waxtaanee nañ ko ba tàyyi ci ki doon tukki yor lim amee lépp teg ko ci ci waruwaayam waruwaay ba dem yóbbaalim lépp ba fi mu ba mu toog di xaar dee fi mu tëdd di nelaw waruwaay bi ñëwaat ak lam àndaloon ci yóbbal lépp noonu muy amee yaakaar ci dundaat nu ko raw fopp ak mbégte nok la suñu borom di béggee ci jaam bi su wëlbatikoo di tuub jëm ci moom kon nit ki ndigal yi daf ko war a jëfe la ko sëriñam sant diir bu mu ko waxee da ko war a jàpp diggante bi lu mu fa man di def bu mu ko tee delloo loo fa man di def lu mu rëy rëy bu mu la tee delloo bu mu la tax a wàcc ndigal yi déedéet waaye ndax jullit bi danaan man kat gannaaw man damay mooy yàlla dutuma julleeti déedéet da nga war di julli da nga war di tuddu yalla li yalla digli lepp dang ko war di def bo demee ci anwarul xudsi bi imaam dafa wax ni talib bi su defoon moy yalla ga gëna yéme sax war naa dikk ci serigne bi nako man de def na nangam tuddu ko ci karam du doye di du manki ndax lolé kat serigne bi man na la ca jéggulu suñu borom ba suñu borom jéggal lako tay wax ay xayna nga ci loolu moo ne ku ci dem ci docteur yi sayir yi bu la laajee dam nga koy wax léeg-léeg bu laajee wane nga wane man nga man ngaa liyaar docteur bi ci sa biir ba caag mooy la ma xool moo xam li ngay xool li muy xool lu sa mbubbu muur la wala lu sa tubay muur la te su boobaa doo am benn complexe da xam ni faju nga bëgg wér nga bëgg loolu mooy tax lolu mooy taxit nit ki ah te te lolu ngay wut ci ci ci sa jangoro joji ak safara it ah yalla bindina ay jaamu yo xamanteni ni lu dugg ci seenum nopp yalla man na ca def tawfiq du yam ak mukk la dugg ci seenum nopp mo xam ay do len di wax la ci sa ak sa borom lu mu mën doon rek mu dugg ci seenum nopp du yam ak mu ñàkk dugg ci seenum nopp moy tax nit ki su wa lolu bu mu ci am ben jaxle na dellu ca ko ko joxoon loole na wéyali ndigal la njëkk na mu ko ko waxee lu mu fi man di defit nanu ka man day gàllankoor sàngam dab na ma fi lam ca war a defit subaa dana ko ko wax moom it xëy na lam ko ci war a féete ci digganteem ak boroomam it dana ko ci féete ci mbaaxu yàlla ay yërmandeem ndax ñoom kat loola tax suñ borom def ci ñoom lam def ci ñoom mhm.